dañ jëlte yi misiri jaayirmaani ak misiri misiri Cheikh Cheikh Tidiane ak misiri Baye mhm. ñoom ñaar ak jaayirmaan bi lañ boolantee muy ñetti def ci njëkk dafa am solo ah asoal saabia as laajte bi nga xam ne mooy fukkeel bi ak juróom-ñaar waaw misiri xal lil aarifina ndax aarifina yi am nañ foomu kàllaamilaay yi foo mën ko dégg-dégg ci kàllaamilaay ci wax yàlla yi taala am nañ ci dégg-dégg koo xam ne xaasum ñoom rekk ko am ndax am ndax noonu la am am nañ ko ñoom aarifina yi wax yàlla yi ndax aarifina am nañ ci dégg boo xam ne ñoom dong ñoo ko dikk loolu laa bëgg xam aljawaab tontu na am waaw waaw kàllaamu laayi waxulaahu sifatu mel wa buñ ne melo rek xam nga wax man mën ngaa gis wax mën ngaa gis wax ah boo demoon foo muy bàyyi ko nëkkër looy luy rek luy luñ jëmalu rek loolu mooy sifa moom melaw yàlla melo laay tabaraka wa taala war na salawàcce naa fi kulli azratin moom pay bu ne moom kàllaamu laay daf cay wax wala am na moom ka waxu laaw zaayum bi ci ubaat nag biir wax ju ne mu ngi kuli seen tax naa seen moo tax mën a sëylantee wax yi nag ku la gën a mën a déggatle biir ak bitti moo la ëpp dégg-dégg ci alquran tey nag ñi nga xam ne ñoom ci saay rek la ñuy daw ah bëgg a ñuy ñiy daw ci baat ba saare baat am na ñoom dañ dikk ne ñoom baat baat rek waxuñ ci waxuñ saare moo tax bàyyi buñ kon nag bu ne al mën man la bi lawm ulum saayir tasawuf foom ak ah, xam-xamu saayir ba ànd ak baatin ci nga mën a amee xam nag luy maarifa aqiq kon nag loolu lañ wax xam am na kon nag zaahir ak baatin fa saayiroo bitim woo moom ardu sariati mooy cosaanu saria mooy ci lañ ci lañ tëral yoon wa baatinoo biiram moom ardu xaqiqati mooy cosaanu xaqa waaye du xaqiqa gis nga de saayir ba mooy cosaanu saria cosaan la maanaam fa ngay jaar pour mën dugg baatin ba cosaanu xaq la maanaam fa ngay jaar pour mën dugg ci xaqiqa waa maa saayiroo naka bitim àllasi bi yàq ne xaw ma aslu sarati moo ci san sara voilà ma jàlla amul woon li waaye li saareti arifin ak arifin ci coom luñ ca mën a doxal biti am amul fekk nam te na ko yén fi nii rek ñu dox ci amul lu ca aarif de dugal benn ma jaal bi maanaa amulum cay dugg naan nii laat naa la moo tax toujours wala xamoon nag kenn ku ne la sa xaye mm-hmm. ñu ne ko xayawal sa moome ñoom dañoo xam ne kon lool du seen ay moom ñoom ñoo xamante ni ñooy aarifale fii is ndax lay sa indewum nekkul ca aarifine fii ci sariha illaa ma lu may loo xam ne xarara saxal na ko asar o yoon lu yoon saxal rek ñoom dañu dikk sax ca loola amul luñ cay saxal nag dañ cay sax rek saxal amu fa sax ca da am yow loolu la arju waa asalama am alitul al ijma al daje ñoom ñépp ñu daje ci lii bii sax waaye la ñu sariya saxal ñu sax fa sariyaatu sariya al mutaharatu buñ laabal baada qawlihi taala gannaaw waxu taala al yawma ca yawma al yawma ca bés ba xam nga dañ ne mooy bisab arab al yawma tey mhm. akmaltu laa matal lakkum ñeel leen mhm. diinakum seen taxawaay bi mhm. seen diini ci ci tey mooy bisab arafa yawma arafa ah déglu ma rek tey xam nga nit ñi buñ nee al yawma tey ndaxte tey mooy kan booba ndaxte yow man wa yow man wa saalsan tey nag ban yow ma ci yow ma la ñu waxee ne ci lay mottale sa ci lay mottale diina bi al yow ma ci yow ma bii nii ban yow ma mooy <laughs> waa ji taxaw yi waa taxaw arafa yi mooy yow ma moom mooy borom moom yow bi foofale ba doxee ba dikk ci xarafa ñu ne ko xarafaat xam xam ci nga xarafa xarafaat lañ ko tuddee ay xam ñi xam ne ñëpp daje nañ ci benn benn benn teere ñu ne ko xarafaat nañ doon xam ci awalu ak nañ doon am ak xàqul ak saayu ak baat bi te ñoom ñëpp ñoo daje muy xarafaat foofa nag fa fa xarafaat fañ dee ci xarafaat fa la diina ma tee waaye marifa genn wàll déedéet mi ngi mel ne ajjara genn wàll jiñ passé xaaral faat al yawma akmaltu lakum diinakum moo tax gis nga ñii dugg ci détails te nekk si saa yi saa yi naan waaw tariqaam nangam nangam nangam yow xamuloo diir wax na al yawma akmaltu lakum sariatakum wax al diinukum laa wax diina bi diina ñëpp féetara laa ere ni naa sax biñ laa ba mu bindee nit mooy diina loolu ma ko kon na ki nga xam ne moo moo ñëpp bind ñi nga xam ne moo ko bindoo te mooy mooy Muhammad ba nag ndax mooy ki nga xam ku ko joxloo ma ma nga joxloo kooka laa matal dundam dundam mën na sëkk fii ngay daw moom daw ci léppam muy arafaatam seetal moom ci la nekk xat ko gannaaw moom lan indi lan doon indi mooy wàcce bagage ba bagage yi dara manqué tul yëpp yemb mooy lan bagage yu yëpp koo xamante ne ñetti bagage fi ñuy wàcc bagage ak fu ñu ko wàcc yemb na lii kon nag lii lu fi amati soxla transporteur buñ ne ko demal yóbbul woon lii nii dama décharger ma ko ca Bamako mu dikk ba ci terrain bi ni ana gars yi mu ne mu ngi nii mu jox leen si nga xool signature mu jox di délibéré bagage nga signé ko ne jot naa ko mu jël ñibbi si kon kay akmaltu ne ko kon nag dëgg dëgg dëgg yàlla ki nga xam ne moom moo tax ñu ah moo tax nag maa ngi baalu gars yi xàq dañ ne ñun léeg-léeg dafa xam ne xam nga ñi nga xam ne dañoo tayal waaw bu fekkee ne commenté bi day déedéet lii nii dafa laaj ñu laaj al yawma akmaltu lakum dinakum ban lan mooy diina diñ matal su ko defee waxuñ ci kon nag sariya bi nag naa continuer di di wax loi jamono bu nit ñu indi loi yu dëppoo ak waa jamono waaye diina ji moom benn diina ji moom moom paas leen di diina jooju moo dikk de diina moo dikk de islam mooy iman mooy islam moo dikk de sarihatan wa tariqatan wa najjan moo dikk moo dikk moo dikk waaye lépp pare léegi rek ak mat lakum diinakum ah wa anamtu aleykum ni amati sama xéwal gi ndaxte xéwal dëgg dëgg dëgg mooy diir matal naa xéwal bi sëkk sëkk lépp loo xam ne soxla ngeen ko ci xéwal descente naa ko ci asamaan mi ngi sëy war a day ko tànn naa la ko ne al islam islam nag tànnal naa islam nag nag mooy mbub mi xam ne moom la diine solo moom laa leen tànnal teni teni islam islam dafa nekk islam ak iman ak ihsan islam moomu nag dafa nekk trois morceaux kon kon nag tànnal naa leen taxawinu trois morceaux bi kon nag moom laa leen nag kon nag diina dina diina indalaay al islam mooy islam yi loolu nag ci saayir lañ ko wax nii waaye diina jëmmi jiw la islam mooy jëmmi jiw loolu nag mooy la xew ni diina mooy jëmm ji taxaw ñu ne ko nangam islam mooy taxaw ñu ne ko jëm ñu ko nangam kon lii soo ko xamee ne aha kon nag taxawal yow boo dikkee ci lislaam nam taxawee rek taxawee ko taxaw nga taxawaayu diine waaye man laa xam diine ndax diine moom mbir na moo xamee dafa nekk ci biir mën na ko gis waaye islam nag moo dikkee nag war kon nañ koy defee lii li ngay defee li ngay defee lii foofu lañ mën a gisee li nga xamante ne moo ñu tax nag moom naa leen tànnal waaye seetal loolu di gër gërëm ngërmaane ah. ngërmaane salaatu ci yonent lañ ko def ah. ngërmaane ci wilaay lañ ko def kon nag fi ñu gërëmee fan la ki ñu gërëm ki kan waaye waaye damaa bëgg nag loo am na xaw bu bu leen dof nag dama dama sol <laughs> gërëm nag wax <laughs> boo leen ma indil ay ah. xam nga xam nga <laughs> boo gisee eh, ñuy wax dangaa war a puus wax ji di ko puusu puusu puus ba ñu yëg ñi nga ko jox jox yi nga ne yëg nañu jox li nga jox xagsi na xam nga am te bu ko jël mooy wax yoo xam ne ak waaye am te bu ko jël am te am nga téye nga xool na ah kay xasul loolu nag man mooy sama njàngale sama njàngale damay wax di waxaat di wax di waxaat di ko puus ba yëg ne a dugg na ma doog a jàll léegi nag nit ñi dañ bëgg ne waaw waaye léegi man na bu ma firee bari jàll kon fu ñuy dégg fu ñuy dégg ne agsi nag déedéet dama koy puus ca ba wane ci sariya bañ gis ko ci biir saahir bañ gis ko moo puus dem ca bàttin ba nga dem ca bàttin ma yëkkati ko teg saraw nag ne waaw ñu dem ñu ne waaw acc nañ dem nag loolu mënta gaaw di del fokk ñu ñu ñu dugg alam nag alyawma akmaltu lakum dinakum anamtu alakum ni'mati wa raditu lakum al islam diinan mooy seen taxawaay nag waaye nag ñun dañuy seet alquran fa aqim wajhaka li diini hanifan sa karkaas bi taxawal ko ci diini ja direct ñu ne ah mu ne fii tarat laa eleti fa danaas ale bindalem laaw ba mu bind même leen bindi xii ah ñu ne ah waaw ndax mu ne waaye laa table amul changement ba tey kam ka nga xam ne mooy diine ja taxawoon mat sëkk ba Mouhamad dikkee loo loo teqale ko moom am na ñaari nopp nga am ko am ñaari ba lépp lu am nga am ko kon nag Mouhamad boobale diine jooju du góor du jigéen kon nag ba nga dikkee lu nekk ci nekk na ci jigéen te nit di tarawaay bi nga xam ne moom ngeen sotti liggéey nag kooku compté wul te nit tarawaay rek ngeen jóge waaye yéen ñëpp dina bokk li nga xamante ni mooy nit gi nit ki diine ji diine ci amul ñaar amul ñett kon nag lii nag ay xuttimat xat xuttimat mat les na ko nag moom dina laa yasidu fii wala yanqus amatul yokku amatul wàññeeku niti niti yow kay yaay dikk ci tël niti ba nit ba nga juddoo de màgg de màgg ba mat ñu man na man na waxambaane wala ma sër na kon yaay ciy dikk rek waaye mat moom ni ñu yow ba nga nekkee mineur yi mag mag mi ngi yow ne yaa àgg ci àgg sa mag kon nag amul lu ci yokku amul lu ci waat nit sa yaram yii nag de moom mooy toog de màgg di di dem kon nag amul yokku am wàññi war ni xaytu dégg nga dégg nga kullin ah wali yi mooy yemuwaay wali bu mat kaamil bu mat xaasal baat mi nga am ci bunt bi wali yëpp ci bunt bii lañ ma lañ matee mm-hmm. mooy lan an yaridoo dayrat anasimi ilay ilay ci moom xaalal xaadi maanaam dañ jari si kon fii nag boo disee waliyu kaamil waliyu koo xam ne waliyu mat la boo àggee ci maqaama kaamil bii dañuy indi nag kaamil dem ci kat ngeen doon demee ci waaji kaay nag kaamil xasan dem nañ ci moom itam ndax saa bay fu ñu mottalee seen seen diine jëpp ci yonent bi kon nag insaanu kaamil bu dikkee itam fu mu fu ñuy mottalee ci moom la ñu moom loolu la wax kon nag wa nihaayatu kullu waliyin kaamilun fi haasal baab ci bunt bii an yaru da dafay delloo andaa sëriñee ilaay ci moom xaalal xaadi ci wëlëre ale si nga xam ne kaan nekkoon ak ale ci yonent sama na rasulaay salaa salaam nañ fotlante fotlante noonu lañ fotlante nga xam ne mooy insaanu kaamil nga xam ne tey moo taxaw waxaasaa kii nekk insaanu kaamil huwa al mooy kay beesal moo tax kaay beesal du kaay ma doxal la pour beesal yow yaay màgg ci di di liggéey travail sa bopp ba mat nga nekk mbër waada ñu wax balaa ngay nekk mbër waada da ngaa entraîné wu ba mat mbër waada fii nag su ko defee ñu ko def xool am na laa bi maanaa moo jënd mooy beesal sara an du ne moom moo dikki beesal sara léegi moo dikki de borom taxawaay bu mat ba mataayu taxawaayam ba lañ tuddee ku bees ndaxte ba mooy màgg de màgg léegi nag ñu ne ah kii de kii de bokk na kañ xamoo ah kon na di ko pour indi sene bu bees waaye taxawaay ba lay gën a feddaal bal mujaddidun li naasi dafay beesal nit ñi aru joxo ka xamante ne mooy beesal nit ñi fi ñu war a def nit ñi fu ñu war a def la beesal waaye bu sene ndaxte il faut que am koo xam ne mooy général bi nga xam ne moo jiite armée bi waaye armée duñ ko bàyyi rek muy ko kenn ku nekk rek muy bàbb ko tax moo tax réew ak yëpp il faut ñu am président bu taxaw nañu ñu takku ca su ko defee moo tax même réewi tubaab bi même réew yëpp xamuñ dëgg dëgg dëgg dëgg ni ñu war a organiser nguur ndax nguur du du caaxaan ah su ko defee nguur bu taxawee ci dëgg nit ñi mën a ñëw ñëw ci dëgg gi jàmm ne ñooy waaye bu nguur teggale ko baa baa doolee bañ a topp buur réew daal yàqu ak mu man doon nag noonu lay nekk kon nag ñaar ñu mat buur bi dafay mat baadoor yi di ko ma manqué mu mott leen kon nag buur di niru ak baadoor aw doxali kon nag lii nekk de du beesal sénéa dafay beesal taxawaay bu ñu mën a jël saat li naa si fii yée fi nga xamante ni moom yàq oo dañuy dagg anasara xool xanil moo da saati yàqare mooy yu yu sos yi wal bidee ak bidaa duñ xool yooyu nag ñun xool li xew tey ci jamono bi ak bidaa ñun tey dañuy xool ku mat ka wama alay ali xam nekk na ci olama soo soo yi boroom xam-xam yi ba li nekk nii duñ ko xool ñun mooy lan mina taasub mooy lan ay fe ay li ay fanatisme ay par parloo ñoom seen tey jamono bi nga xam ne borom xam-xam yu soo yi yu bon kenn ku wax buñ gisee ku baax mu jël ay tuuma waaye kii dafa xam dara kii da nitu bi daa duñ ñu ñun duñ ci xool kooka loolu yëpp dañuy xool rek ndax kii matee na ko ñu ne waaw kii de matee na ko ñu dem ci moom pour beesal suñ diina duñ xool li nga xam ne mi ngi bàyyi koo ci olma soo mi ne taasu bi li aaraayi muqalidihim ndax ca xalaat ña ñuy roy ndaxte kenn koo gis muy am parparloo ci diina dafa am kuy roy kuy roy ci parparloo kuy parparloo da ngay parparloo waaye ku xam ne daa dikk nekkal diina ci yow doo parparloo maa ngi liir démb jaay jaay jaay jaay eh, eh, kile rimaaw soxor soxor fatiir mu ne yow muqaddam wala yow borom xam-xam bi nekk ci dëgg jiiti dëkk ba nit ñi topp sa gannaaw su la ko la sut ci xam-xam dikkee ca dëkk ba yow ak say taalibe àndoo leen dikki wan topp ci gannaaw loolu la wax ndax ndax sëriñ dañ ko nangu mukk loolu nag moo indi nag réew moo tax fi ne kenn ku nekk nag ne mën a mën a mën a ñun nag boobaa seen mën a mën a yooyu bu yeboo bari waaye faaloolu kër kaana moo taxaw te taxawaay bu bees bi nga xam ne ku ci topp dikki bees ñun moo la ñu topp nag xool nag seen bidaayaat seen parpar la yooyu la tax li aaraay muqalidihim wa haasal jins bii façon minal mujjadin na ñaa xam ñooy beesal koomo almaana bi qawlihi salaa sallam façon beesal bii moom la yonent wax ne xollaamaawu ummati ka anbiyaay bani israil sama borom xam-xam yi xeet wii te mooy waxuñ borom waxu jàngkat yi borom xam-xam yi nga ne mooy xam-xamu tëj jidd eh, beesal ñooñ ñooy ñooy ah ba bani israil dañu mel ñu andem garaatu bani israil wali saaroo lañ mujjee ñoom nag wiraasatal anbiya ñoom ñoo doon yónni ci ñoom nag fii lañ doon yónni ci ñoom ñoom waaye nag nga dikk nag mel ca mel mel na doon sa baay doon sa maam ne man nag man maay da nga maa maay doon yónni déedéet wala nga jàng xam-xamu saa yi nga xam ne maa doon yónni déedéet léegi bal nga doon yonent da nga xam xamu biir bi ak xam-xamu biti bi mën a doon yonent yi seetal kat Ibrahima boo waxee mañ ko faree ilimaan ndax dafa matee fii mu ne wamin mu ne ko déet laa ilaaha illa Salim Ibrahima jox nag sa doom buy tooñ du ma ko xafal de waaye lii ñun duñ jëlee xam-xam seetal waa Israël fa xalafa min ba'dihim xalfun ñoom nga xam ne sëti Ibrahima sëti Isaaq sëti Yaqoob xuuti seen maam wacc seen yoonu maaw di dem caay-caay yàlla na safar laa leen jëmale waaw yooyu nag kon ñun duñ ca jànge lii nag kon nag mu jëddi duñ ko xool fu dëkk duñ ko xool fu mbokk bokk dañuy xool taxawaayam ca matam nga al ak mot laa comme kii man na ci moom rek nañ toppati matal suñu diine kon nag lii lañ nekk yar ama baatul quran naka biir al quran àll si nga xam yatajadadu a dafay beesu soor ma ani ay feeñ ay maanaam daa iman nag alxuraan maanaa yi mën nañ ko firi tey jii mu dem ñu subaat mu génnaat ci beneen tëri bu bees ca suba sa mu génnaat ci beneen tëri ndaxte moom mooy mu tëjal yi mbubu mënta saasewu borom boobu mooy saase ay mbubam kon ay saahir yu ay ay ay mooy mbubb yi kon nag yëstaru min shay'in ala kon kooku nga xam ne mooy feeñ ci ay yëf yëf kon nag man nga bul dikkee ah man daal gannaaw moom mu weex dikkul tey mu weex du ko du ma ko faale déet yow tam xool ñun borom mbubb lañu déglu waaw tey kay dem moom bu njëkkoon dem moom dafa dikkoon gannaaw mbubb tey mu dikkee da nga ma am euh, costume bi man faale ko déet costume bi ci dara ñun nañ xool rek ki nga xam ne moo di kii ko di kii borom colaay la borom colaay la ñu xool de duñ xool nag colaay yi kon nag lii lay nekkee ah moo tax muy bees moo tax ama baatul qur'aani allazi huwa aslul haqiqati yatajaddadu suhóoru ma ani daa nag ay maanaam yay génn day bees laysa maanaa saalika nekkul maanaa li ma ne wax ne ana ma ani huwa moom ne maanaa ya dañuy beese laa huwa moom ah, wa ma ani ak la xamante ni wa ma tadamana min al asrar nag ndaxte maanaa la dafa am maanaa boo gis dafa am mbóot mu nekk ci biir kon du maanaam moo saa sa mbóot ba tey xoola kon mbubb mi ni mu mbubb nii moom moom baatin ba mbubb la ci suru suru boobu nag moom mooy dikk de de saa sa moom itam kon nag boo dikkee fekk moo soxla ma maanaa ba la génn nga dikk fekk beneen maanaa xam nga luy xaarif xaarif day wax ne waaw léegi li ma ko xoolee mbubb mi ma ko xoolee ni tey ka ca biir kar la loolu mooy xarit su ko defee nga xool nag ne mbubb mooma nag yaa yoxal mu sëmmilu yaa yoxal mu dësiru mbubb mi nga xam ne moom la làmbaayoo dafa am moom njiit nag moom yow mii mën ngaa nekk moom moom mu jëddi bi mun naa nekk mu sëmmil nekk mu dësir mooy nag moom nga xamante ne mbooy baat mbooba dafa am yére bu mu ci biir am yére boo xam moom lañ njiit laay ci biir ngir laay boobu nag moo ñu tax a jóg mooy surba nag su ko defee nag yow mën laa xam ne nag ah kon ndeke waxuñ beesal saayir bi waxuñ beesal ak baatin ba waaye surba nga xam ne moo nekk ci moo kon nag loolu la wax nag kon nag loolu la yëpp si mu ne ah, kon huwa tafijut laa huwa ah, wa ma dégg wa ma ali wa ma tadamana min asrar nga xam ne moom làq ci ay asrar yépp moom la gën nag pour xam maanaa yooyu lu mu demee ah wal anwaari ak leneen moom mbubb ya dafay nekk ay asrar wal fuyaadit ak faydu faydu ay faydu faydu bu dikk boo ko def faydu bu njëkk kullu xaasaa lépp ci qadimun la bi qidami sifati saayir ba moo nekk eh, mbindeef waaye ay yi moo nekk ca biir de asraar ya di anwaar ya de fuyoo ya yooyu yëpp ay xaqiiqa lañ ndaxte lu tax ba mu dikkee muhammadiya ahmadiya xal li ah, ah, nga xilaafa ca biir xàq la léegi mu salaat ñu ne ko róoxu ne yaram ne dennamam ne xol kon xamu yaa ngi dikk rek mu dikkaat ba mu dikkaat nag ñu ne dégg a sam'a wal basara wal fuada kon nag léegi yooyu moo dikk ci bit bi kon nag da ngay jàpp bii jàll ba ca biiram jàllal ba ci biiram ba xam yi ca biiri biir boobaa nag mooy li nga xamante ne kon nga dégg nag kon ah kon nag bit mooy saayir ba ak baatin ba ay mbubb lañ waaye ñi nga xam ne mooy sifaar ya mooy asraar ya mooy anwaar ya mool fay kulluha sa qadimun bi xidami sifati ndax sifaat yàlla ci Bamba kon nag ñoom ñi siba ku siba lu bàyyi ko ci siba lu màcce ci lu màccere ci siba siba xaq din la kon moo tax lii matière bi nekk ñu nag ñu ne ko ruuxu ñu te muy siba te ñu ne ko uluhiya lool na nga xam ne xaqiqa la ànd ak moom sol na xalqiyaat yi xalqiyaat yi mën nañu nekk ay xalqiyaat waaye ñoom na dañoo nekk qadimun bi fi la nisbati wa innama yatajaddadu beesawul sóoru sëy yi feeñ ak dara alif yaa xamante ni tarajama moo interprété xaan hu ci moom alquran li nga xam ne moom la feeñ di ñu wan alquran nag loolay loolu nag moom yàq mooy mooy université la nga xam ne moo dikk dañu ta ko dañu ko tekki xam nga léegi ki jotlikat bi jotlikat bi mën naa nekk jot jotlikat boo xam ne xam-xam ba bëriwul kii dikk ëpp ko xam-xam kon nag lay dikk de bees de bees di génn xaq moom yëtta jënd du soor si i alfi tarajama anu alquran nga xam ne ba feeñee moo ñuy tekkal alquran moo tax toujours ñun dégg-dégg tey sorombu dégg-dégg ëllëg yi démb yi kon dégg-dégg te wallaay mën naa la waxal ne suñ sàngu doon sutura ay nit danaa la woon ay jëll yoo xamante ni borom xam-xam yi ngan de ñoo ko def te dañ leen sàngu sutura waaye mën naa ci wax koo xam ne moom gannaaw moom sori na mooy ibnu arab atimi ah. ibnu arab atimi ni mu ngandee xamul ne xaatimul wilaaya moom xat mu bi duur ni ko yaakaaree dafa foog ne xaatimul wilaaya mooy si rang wilaaya day dox dox ba ci ba ci xam fii la fii la terminisé moom loolu la jàppee xaatimul wilaaya ba mu toogee ne dinaa xatamalaal wilaaya fandar ileera fara xam yàqul laa bari man kay xaatimul wilaaya ci man la la jeexee beneen xaatim di ko sama gannaaw moom xam xam na luy xaatim booba ak im ak li nga xamante ni moom la def ci ay walim ci ay ay ay xam-xam koo xamul luy xatmu kon nag léegi nag gis nga jël boobu mën nañ la ko waral ba ci borom xam-xam yi nga nekk yi nga nekk tey mën nañ la wan kenn ku ci ne fot ba nga xamante ni dafa nekk fot waaye nag dañ leen suturaal te nag bu ko defee ñun waa jamono bii nag ku di fi indi xam-xam boo xam ne xamee ngay foto boo boo ko waxee fii tey ñu xe ñu ñu ne nekkul ci dëkk te wala da ngay ñàkk liggéey te ñun wallaahi laa la wax li mu wax nii ni la amee nam dikkee tey feeñee ko tey gën koo leeree tey ci démb bu ëllëgee noonu la gën a war a leeree waaye démb gën a leer tey addina du arrière yàlla du arrière <laughs> yàlla moom day dem ci kanam kon nag nu mu noonu nag loolu lay demee kon nag yetti jëda do soor sa i alhi tarajama anoo alquran xata na la may xam nag ana haasa say anaka affaire bii ko moom àll si may xam ne kaa nekk na moo soo fan lañ mel doon lañ mel bi bil quran si nga bañ xam ne yii ndike lii ñu xam tey alquran moom la meloon démb seetal liñ fi gisee rek da ngay gis naal boo xam dañ koy naal rek ñu toog ba téere buñ ko naalee rek nga li man lii jàng naa bu bëgg a dee mos ba ko dégg fekk na lu waral nit ñi tey dañoo nit ñi la fa ñu waroon jaar pour dégg si ndaxte buñ buñ fàtte mukk ne ah xam-xamu saayir mooy xol bi balaa nga xam gerte ba ci biir da ngaa daj xol bi soo xol waaye na ñu xolul xol su ko def moo tax bàyyi bàyyi moo tax bàyyi mu ne ma nag falaa yëkku xisul diini xasa muy bi nag nga la yàlla xool li ci diine bu mu nekk suñ cër bali lubu lubi lubi boobee lañ bëgg nag su ko defee nag yow ki man di ki dem ci lubu ak lubu lubu yow man laa xem lu mooy ci xol bi nga ne ko yow waxu nekkoon li nga wax du dër du dara gett li nga wax yi nekku ci gett gekkee man ci biir ak gee ak kii xam nga ne kon dëgg dëgg yàlla seeti nag moo tax dëgg dëgg yàlla mbir yàlla dafa naqari dafa naqari jàll te walaay ni ma wax de ñu ngi mel nekkal xataa taalam ana xataa say huwa lësi kaana mawsuufan fi alquran lii de melal nañ ko alquran moo tax Cheikh Tidiane bi mu dikkee nag fi mu génnee alquran bàyyi ñes mu ne mu ne alquran hadis gisuma ku ma ko gën a dégg xam nga loolu tiggi nag waaye gisuma ku ko dégg man sax toolu fekkoon ni gisuma ko dégg ni man sax la bëgg la waroon wax waaye gisuma ku ma ko gën a dégg la waaw am na ci droit ku ko gën a dégg dikkal na ko kaay ma déggal la ko moom de boo dikkee mu déggal la waaw ku ko gën a dégg nag na dikk kon nag gis ne fii nag alxuraan ko alxuraan fii la màgg ba ak si fii de kon nag alyawma fii la ma teg si de kii nga xamante ni boo dikkee lépp lu leen maanaay alxuraan xam amul lu ko ci umpati kooka nag foofu lay mat lay dina kon nag lii la nekkee aw yàqoonu say u kaana mu jëdan wa yatajaddadu alfaama fii wala sax mbir mi sëy bu bi dafay ki ñu ñu beesal ko woyete jël foofu fii mbir ma nga ci ne moo dikkoon dafa nekkoon bu njëkkoon ñu beesalaat ko mu gënaat dégg-déggu bees loolu ma fi nekk lii yaa ngi fi nekkoon aay bi di ko romb di ko romb di ko romb seetal démb rek waa Maroc yaa may oo dema xam nga léeg-léeg dañuy toog diggee ci keneen te fekk dafay doy waar waaye ku ma sa xam rasul na euh, maarifatu rahman ak maarifatu billah kenn lañ ko ma ko ma soxtaane bàyyi rek ma ko sulukul ibaadaat ak sulukul xaqaay fu ko mos a waxtaane bàyyi waaw tamit fi woon nag ndax kon nag kon nag bi mu dikkee indiwul lu bees léegi na yow boo nekkee ci pays bi yow nga di foog ne euh, ah, fa junne di boo dikkee ne dara amul lu yàlla rek nga toog yow itam ñu leen lu bees nga def dëgg moo tax kat maa jóge dañuy weddi ma suuf ma suuf dañuy weddi xaarif xaarif yi dañuy weddi borom yi nga xam ne borom ma aarif maarif xaarif yi dañu leen weddi nii am na koo xam ne xaarif la moom dem na ba génn ma coow gi sax du demati du feccati mi ngay jaamu yàlla def lépp waaye tey bu diggee tey wax joo xam ne daf ko euh, daf ko daf ko buure mu ne waaye kii dafa indi dafay weer mbóot déedéet yow yaa beesuwul digg-digg waaye bu sa dégg digg beesoon nga digg li ñu wax li tey nag moo fi nekk tey nag ñoom ñañ xeeb mooy tey ay xale jigéen wala koo xam ne jàng mu dikk déglu lii xam nga kaay ma woon la xam-xam kaay ma woon la ka ko gis ka kooku moom bu dikkee moo xamul dem ci liir ci téere xam ne moom nii nii waaw léegi nag bu la ko waxee yow yow nag nga dikk ne jaay nga ne ci kawam te baa waxee da mu xam ne yow dangaa jur du moo fi nekk lii nag yàlla ci yàlla nañ nañ góorgóorlu nag génn li nga xamante ni tey fii fii la bakkan bakkan la de moo ñu fii la fii la rek waaw fii rek la waaw bu leen dem fii rek la su ko defee ñu tar rek kon nag lii la nekkee nag waqul lama tajadada kon nag lii la nekkoon nag tajada alfa moom fi kàllaami laay waqul lama tajadada taa yoo xamante ni beesu na asaw ko guwu mos taa yoo ko mosaatee mosu bees wal maarifata ak maarifata awil mësër wala mësër ñett yii taa yu mbeesee bu bees guwu bu bees xam nga guwu dafay am amaat beneen guwu góob démb ba góob tey bee ko gën a sax tey soo mosee góob tey bi wala maarifaat tey bi wala mësët bi nga xam moo tey tey kii mooy ki xew mbër mi xew ci làmb ci tey mooy mësët bii daa yoo xamante ni bees bees na xam nga wax waxtu nekk ne làmb ji am na mbaru bees laa bu daa mënta ñàkk euh, an yetta jàddale bees fa fi fama foomu foomu dégg fi alquran ci alquran il faut ñu benn dégg-dégg ci alquran mos gu bees maarif bu bees mësët bu bees taa yu amee ñu am dégg-dégg bees ci alquran kenn mu ci dara waaw léegi nag nit ñi dañ dañ nekk dañ nekk màggat ga rek te daawa daawa daaw jéeg rek ah waaye nit ñi waaye nañ ñu gaaw avance tuuti kon nag léegi nag man daal démb rek kama naa li abaana waaye naa la sëriñ rek la fi nekk kat waaye lii la de misir la wax de taa yoo xam ne góobu bees génn mari bees génn feeñukaay bi bees génn laa bu daa an yatajaddada mënta ñàkk beesoo famal quran bi xasut ma kem ak tam kem na nga xamante ni tajaddada beesee na ko min awal xaal yan dikkee il faut xaal yi bees ya ñu ndikkee ci alquran mi ngi nii li nga xamante ni mooy euh, euh, mondialisation bi xew mondialisation bët bu set day gën a iwale ah fii nag bu ñu demee WhatsApp kañ la xew ay WhatsApp ak ay kañ la xew du du kii ah ak ak kii ba téléphone bu bees xew xew bees boobu li ñuy wax da nga am ay da nga am connexion amul léegi connexion am na lii gën a jég gën a avancé télévision mi ngi ñëw si bu ñu paree dafa taxaw de déedéet ndax am na këligi euh, boo xam ne ñoo juddoo ci ñii buñ génnee génnee photo boo xam ne mooy gën a kawe lii mooy avancé waaye ñun nag waa saay avancé nañ waa baat ne de buñ avancé mu ne wu rëy rëy rëy mi ngi nii de ñun dañoo taxaw ci biti fii ñu xamul dara de oote lu dara ñu ne waaw ku oote dëgg bu dikkee réew nii ñu ne déet lii ba suñ bàyyi xamuñ ko woon lu seen bàyyi xamu doon moo war a génn waaye lu seen bàyyi xamuñ jar jar na génnaat déedéet nañ ko lu bàyyi ku ci nekk dañu wax sa bàyyi daf leen war mbaam ngay war kat kat yow nga ne nga ne nga ne kon nag demal wari kar kar yonent yàlla ma man moom saaba yi daanuñ def daanuñ daanuñ yore course daanuñ yore tariqa dem ne saaba yi doon def nga demal demal ci jaaj kon lu bees dikk ngeen du ma war ci lu bees da ngay tàdde rek ñun nag tardement bii moo ñu yàqal suñu addina yëpp yëpp yëpp waaye taa yoo xam ne ñett yi am na mos gu bees maarif bu bees mos gu bees laa budda an yatajaddada fahmun fil quran bi hasab ma tajaddada min al ahwali kem na xam ne mooy kama kama annahu laa nihaayata amul yem waaye li maani kàllaami laay maana wax yàlla yi amul yemu fokka saalika laa nihaayata yemal li maa yoo xamante ni itam itam dafay beesu min fooy maani kàllaami laay ci digg wax yàlla yi ñoom itam du yemal maana yàlla yi du yemal di lay beesu ci li ñuy digg ci moom du xam yemal masalan ah bi qawlihi taala huwa huwa huwa al awalu mooy awalu njëkk gi xam nga li ñu ko doon firé bu njëkk awalu moo fi njëkk waaye xam nga baaxu boo ne moo fi njëkk ñu ne ku ci tege déedéet al awalu mooy njëkk gi ah xam nga kon dégg-dégg bu bees bi li ko indi tawhid bi nga xam ne mooy tawhid bi nga xam ne ci nga xam ne kenn rek fi nekk doo indi kon nag ki njëkk ak mu jëkk loolu dafa bak bokkal kenn moo dikke dañ jëmmi njëkk jëm wal aaxiru kii mooy mujj gi wal saayiru kii mooy biti wal baatinu kii mooy biir kon nag huwa laa wax de waxuma la moom huwa laa wax kon nag léegi nag léegi ku huwa ko wax de kon nag seetal huwa moo tax huwa huwa mooy kan tey xam nga li ma li ma li ma nekk diggante xam nga huwa ak anta xam nga anta boo ko waxee mooy ñu ne la anta man anta kan mu ne yow diw xam nga diw moomu ko nag moom moom moom moom mooy anta bi waaye nag dangaa joxoñ anta waaye anta bi moom du diw ndaxte ant kan mu ne yow diw mu ne ma mu ne ma yow ndax ma ne ko mu ne anta diw waxuma ne yow de anta yow mën laa wax xam nga mën ngaa daw léegi bu fekkee bëgg a yow mën ngaa wax mu ne waxuma la de kële laa wax xam nga mën nga cee d'accord kon ant du yë ant du kii ant ba doon kii du tekkale ko kii ba nga ne yow yow nga ne yow man mu ne ah ku la wax man dama ne yow yow nag yow yaa fi nekk ah ñi fi nekk yow yaa fi yaa fi doon kon kuy anta anta kon gis nga lii la ñu nekkee nag <laughs> gis nga mooy ba nga ne moom ñu ne kuy moom soo ne diw mu ne ah ku la wax ne diw la lii nag moo tax mu mu nekk de kat miir mu ngi ne fàng ne dàng waaye daf ne meng ndaxte lan da koy waxee soo ko bëgg a da takkal tuuba mu witti moo tax yàlla boo ci dikk dañ lay dàqal huwa gaag anta gaag anaaga ndax lan su ko defee mën nga caay làqu ku la bëgg wax da ah yow yar yaa yar mu déet waxuma ko de moom laa wax man man déet man kaddu moom laa huwa xam nga ko làq ko li gën a ko te ko koy def lii lañuy ñuy làqoo lii xaalis dama muus bu war a muus buñ ko bëgg a tànc rek mu rocce ko man man ak man huwa laahu de mooy yàllaahu de man déedéet waxu man ah yow yàq mu ne kooku man de huwa laa wax lii nag moo tax ana huwa huwa ana ki muus ki mooy bàyyi soo ko fekkee ci ànd ànd nekk huwa ne ko yow yaa ma déet laa wax de mun ne ko yow yaay di ana yaay ana yaay ana yaay kan mu ne man huwa laa wax de kon mën nga ko diggante wu ak ana mën nga ko xam kuy woo diw kuy ana diw ñëw man man may diw man may diw waaye kan nga ci doon man ah man de waxuma ne ci may ci kenn rek man daal may diw laa wax de man du man la ci xaalis nii lay def waaye maa yàlla dofu ko yëpp kooku dañ war a rek dagg sa ba yow yaa rañ yaa def taa yinde demal ci demir ci demir nga xaj boo demee mën na rocceeku moo tax fii nag boo déggee ñu ne bul oo bul ne yaa boo ne boo ne boo jëlee ne Cheikh Ahmed Tidiane def taayin ah da ngaa waroon xam ca biir demi de foo ko fa mën a wooyee boo ne di ma maam Cheikh Ibrahim da ngaa xam nga daan nga da ngaa war a xam ca demi de foo ko fa mën a tuddee da ngaa war a xam kenn ku ci ne boo ko mu tuddee doo am problème xare daal dem ci yoon waaye na bëgg a nekk dof nag di ci taxaw di ci digg pinc mi nga fekk ni ñaa ngi ne diw. mooy yàlla éé eh, eh, daf ko wax de man ngaa wax ne huwa mooy laahu huwa mooy yàlla huwa mooy anta huwa mooy anaat ndax kenn dana ci dana ci dana ci balaame waa léegi nag ci def demal ci digg diggante yooyu kon nag loolu moo tax nag indi ko nag muy beesee lii nag mooy beesal beesal waxtu dégg kon nag fasaay bu fànnaay borom fànnaaw yaa ngi may xool day yaa ngay dégg xat yi bu fànnaay borom jeex fi saat yaraa dafa gis an ne laa awala wala aqira wala saayira wala batina ila saatu wax daxaa rek rek wax na dëgg waay <laughs> dëgg da ku jeex te saat e, dafay gis na ko ne e njëkk ak mujj biir dara amut saat rek am lii nag lii ni yow nag fii nii dëgg dëgg dëgg dëgg boo ci accès nag ah wala yu saayilu du fa gis wala asma am turi amul fa isa fane bu dee bu bu bu dikkee nag xam nga li kon mi ngi mu ngi ci mu ngi ci saat saatu nag mooy dikk ne bu ko neexee moom na dikk ne may may ëwalu moo tax saatu ni du numéro un ëwalu mooy numéro moo tax ba ma ne numéro un du yàlla ba ma ko waxee am na ñoo ko am na ah oustaz yow tamit nga wax na ma ne un du yàlla waaye ba mu nekkee ci saatu ba mu dikkee ci ëwalu ga foofu ma la ëwalu moo foog ne eh, kuy kuy kuy léegi rek heure bi mooy kan fan la ëwaloo ci ëwalu gi lii mooy jëre xam boo déggee kon ñu wax numéro un euh, ak numéro deux ak numéro trois waroo jaaxle ci ñun li nga wax lu lu laam la kon nag lii ngay dem nag nga xam nag nga xam nag ñi jeex ci saatu moom gisuñ fa dara naan lii ak laa ilaa saatu wax daal wala yu saayidu al asma fa isaa fanee bu seet bu fànnaa fi awliyat yii ndax aw moom saatu dafa am awliyatoom yow nak bo dikkee fanaw ci awli yow de yow de moom duut moo fanaaw ca awliyatoom yow ya dikk fanaw ci awliyatu ga na nga fanaw ci saatu nga dikk fanaw ci awliyatu ga cam billahi billaay su la ko su la ko lee su ko su la ko laakaay mën nga ko defee ci wax ah da ngay dikk nak def na saatu saato he nga dikk saato ko saatu ba nga saato na nga saat dikk ca awliyatoom nga nga fanaw ci awliyatu ga soo ci diggee faru ci awri ci ci ci awri dootoo xam ci awrum ak nga dikk bàyyi ko dem ci aaxiriyatum nga dem faanaw ci saayiriyatum nga dem faanaw ci bàttinam soo ko defee ittasar dafay àgg nag ilaal fànnaa yi jëm ci fànnaaw fi saat foog nga déggee boo déggee fànnaaw fi saat dëgg dëgg dëgg fële moom premier dëggu jeexagoo ci saat ndaxte jot benn tànk rek beneen tànk fi ak ñaari loxo ak jëmm ji nga ne man jot naa nag mu jox naa xol xore kon jeexal ko xol nag boo demee ca saako dikk ci awliyatoo dikk ci akariyatoo dikk ci saayatoo dikk ci baatiyatoo foofa nag ngay àggee ittasala ilal fanaay fi saat nag foofu nga wax foofu nga àggee fa waaw kon nag ni ñu àgg nañ fa fanaa fi saat ndax yi il faut def euh, moom mëne ak ñeent yi ka amul numéro ak ñeenti numéro ngay boolante muy cinq boobaa nga taxaw yow mii di jëmi cinq kon nag sa cinq yi benn bu ca manqué rek ci yow dootoo gis ndax léegi nit bu manqué bu ca benn benn cër manqué ci ñett yi na dox kon nag mu ngi noonu nag boo bëggee fanaaw ci saatu boobu dañ ko régal man ba ma jeexee ci saatu jeex ci saatu ak boo da ngay jeex ci saatu jeex ci awaliyatoom jeex ci aaxiriyatoom jeex ci zaahiriyatoom baatam foofu nga àgg nag ila fanaaw ci saatu fay saa fan yaa bu sànn fiyaa ten ma hilu day jiim xam nga luy giir mooy jeex ba jeex tàkk tàkk tàkk tàkk xam nga lu jeex tàkk tàkk dama ko fi misaale ba tey matt mi bi ko dugalee ci sawara wi sawara jeex lakk matt ba mu jeex tàkk këriñ nga fa des këriñ moom da nga koy dem boyalaat ko ba mu def ab dóom boobaa nag mu jeex tàkk foofu nag génn ko mën ngaa fexe ba mën ngaa jël ba ji dóom mën nga ko doo ko boyalaat tànk bu këriñ ñu fi mën ngaa boyalaat kon safara génnaat matt ma nga koy taal safara génnaat waaye dóom bu ci jeex na yow nag suñ fanaa du war ci nag nga def jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk <laughs> eh, kon nag lii mooy mii naat kon nag fay sa fan yaa fi haa tan may lu xend hoo jameel asmaa yi mboolem turi turi wal musamaati ak ñi nga xam ne mooy toomaaya turwa turwa turwa mm-hmm. ak tooma xam tur yëpp xam nga tur dafa tooma boobaa da ngay dàq tur ak ay tooma wa saalika loolu al awalu mooy awalu xoomu ak fanaaw saalika al awalu xoomu ak fanaaw googu mooy fanaaw jii bële bu njëkk ba mooy fanaaw waxaa saal saali wa al fanaaw xanit fana i la cay waay bële bale wasalik al awl wa al fanaaw ñu ne jeex bi nak moy jeex te jeex xam nga léegi nag dig nga ba ko da ngay jeex te jeexaat kon ba ba safara jeex ba mat jeexee tak tak kenn du ko tudd ci mat léegi nak këriñ def fi nga daqat këriñ na ba këriñ jeexaat kon jeex nga jeexaat kon nak jeex ci biti jeex ci biir bii nak dañ ko ko nga ne nag ko nak mon nak ñu toko salikal awal wa al wa hasa zani wa al fana wa al fanaaw xani fanaaw wa isan taqala bu toxoo alfaani faani ilaa xaddi sifati nag léegi xam nga léegi yaa nga ca e, jëmm jaag tur ak nga jeex leen jeexalaat leen léegi nag nga dër sifa bu dikkee nag intaqala ilaa ilaa xaddi sifati yaraa dafay gis al ayata ay kéemaan amaamoo mu jël nag waaw waaw yii li nekk sama kan ni lan la ay alquran nag day dikk ay day gis ay ay yaa ngi gisaaroo nii mu ngi ci ci kanam woo yëpp mooy dégg minaay ci moom fii sifati ca sifa ba maakaan la ne ko yëfu da ko fi saati lan doon déggee ca saatu tey fii la koy déggee ci sifa ndaxte saatu ba fa nekkoon dafa nekkoon golopaar bi maas léegi nag fii la dikkee ci siba mu ko da ko def détail te buñ ne siba rek siba mooy rasul xaq bi rasul xaq bi moom moo dikk na fi nga taxaw nag commencé rasulaay nag nga xool nag rasulaay bi na ma génne na ma génne ci ci kanam kon nag lii nag mu daal daal taxu nag aaya nag nekk ci amaamoo wa yëfu mi naa fi sifati maakaane fu fi saati wax illaa xaluma jara wax illaa xaluma jara ba tey ba léegi léegi léegi léegi yëf yaa ngay aay daw rek la la la génnoon ca la nekkoon ca saako ma ngay daw ca sifa rek ma nga mel nag kaset ba lañ ca arsoon ma ngay génn rek arsi ba ngay daw tànk yaa ngi ko daw ci mu ngay daw ci kii bi mu ngi daw ci ci ci téléphone la nekkoon ca carte mémoire ba ma ngay daw rek de daw rek de dem ba léegi ba ba léegi waaw léegi nag àdduna tukkagu ndax woon lañ la woon ca carte mémoire yu jeex na waaye mi ngi waay jeex boobu arrêtement bi jeex boobu léegi nag ña dégloon arrêtement bi yëmb bi ñoom ñu ne la lañ déggoon démb rek la waaye tey li nga xam ne moom la ñu askan tey dégg du dëgg ah moo tax gis nga fii yàlla nañ yàlla mësal ci nattoo ñu witti witti ku la ko yàlla nattoo rek problème am na tey ñun nag dañu am ñaari natt natt ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ci salafiya ak ñuy jaar ñoom gëmuñ gëmuñ wala yi ñi nekk ci biir at euh, biir at wala yi bañ ci nekkee ba tey boo gëmee kër wala yoo sant si witti sa nga xam ne moo sant Mbàkke ñuy sant ba xaykara léegi diine benn wari doo ko witi da ngay gëm ñëpp ñëpp ñëpp soo defee lii ci ngay mën a demee ci nga xamante ne dëgg dëgg dëgg yàlla mooy li ñu bëgg a wax nag kon nag nii lay nekkee kon nag ah dis dis ah, ñëw leen ñëw leen bu rek koy liggéeykat yéen a moom yéen am privé kon nag bu la neexee dindi ko gannaaw kenn dëkkal ci dégg nga de su ko defee kon nag nii lay déggee nag mbir may génne sax wa asaasaani wa mu ne kon nag wayefu min ha fi sifati maa kaana yu fomm fi saati wa ilaaxal ma jaraa wa isaatama bu ma tee gis bu woo dégg de léegi ñu ngi lay xëcc ngay dégg ñu lay xëcc déglu leen ma léegi bàyyi leen ko ñu lay xëcc ngay déglu soo demee ba man nag gis bu mba mat way waysatama jasbo o wa salaka mu mu dugg na tariqa suluk yoon suluk gis nga de yépp duggagoon ci yoon suluk ndaxte xam nga balaa ngay xool dangaa gimmi fa nga nekkoon ne lu bitu mu gimmeegoon dara yaa ngoon ci fànn aat yi tànk yaa ngi ci jeex ci ëwali yaat yaag aqri yaat yaag sayri ba sayri yaat demagoo suluk ndaxte ka fa nekk moo nekk ca nekkam nga di nekk ci ay nekkaat yow nekkoo fi ba di fi nekk ci ay nekkaat ka nekk ci nekk moo nekk ci ay nekkaatam yow nekk ko boo demee nag ba nga xalaat pare nga nekkaat yooyu nag mu formé nga nekk nekk gi boo nekk ci nekk nag nga commencé subaat nag xam nga yow foofu la ñu doog a nekkale mm-hmm. lii nag mooy salaat salawaat lay mu julli ci sa óolu julli sa àqlu julli sa loolu mooy fana at mm-hmm. su ko defee mooy salawaatul xaq mm-hmm. mu def la ko ci yow nga def nag ah tama fay sa tama gës boo wasalaka tariqa suluki mu sobran yoon yaraa dafa nag al ayata amaamahoo daalatan moo lay teg xalaat su lëkk nag ah aaya nag aaya aaya ñoo lay wan ne hee fii ngay jaar fii ngay jaar xam na ay aaya xam na ay aaya saayu xam na ay aaya baat na am kenn ku ci nekk nag boo dikkee ya aayaam yaay moo lay orienté ca foofa waaye aaya awalu ci awalu rek lay orienté aaya aqru ci aaya aqru lay orienté ci saayu rek lay orienté bardu lii nag boo demee nag yow ka nga xam ne moom dootu jaawalaat ci ràbb gi kenn ku ne fa mu war a jaar rek wa an yuta kullu si àqin ak xaw su ko demee nii lay def ah su daal àgg nag ci ci li nga xamante ni mooy aayaat yi nga xamante ni foofu la bëggoon agsi nag wasalaka tariqa suluki yara al ayata amaamahu daalatan ala suluki moom moo lay tegtal suluk yaa ngi dégg mm-hmm. moo lay wataada daal di lim daal lim nag al xaqaayiq daal lim nag xam nga gisoon nit boo bu njëkk yàggut dem xaqaayiq xanaa xam nga xaqaayiq bi nga ko doog a gis xaqaayiq nag nga gis niñ li moo ngi ne xaqatu adiya Muhammad <laughs> waay nga gis ne xaqaayiq li moo wa tamis nisa bi nga gis nag nisa bi nañ ca séparé woo waay nisa bi ñoo def tamis nag nga gis na adiya ak siro Muhammad yàgg Amady ak nangam classe bi nangam lii nag bi nga génnee nag ba nga génnee cëpp jeex jeex jàpp nga soobu ca yoon nga xam ne fu nga gisee nag yëf yi nag nga gisee nag a ah, ah, xay xi nga ba ne daal ci ci nga ne moom lañ tasaaroo nga gis nag mbir mi ni mu tasaaroo wala yesilu du àgg saaliku soobukat du àgg ila maqaamin ci maqaam fi ay xajratin amul benn maqaam boobu àgg ci benn pays maqam bu àgg ci pays bu nekk luy maqaam xam nga haadiya euh, euh, euh, maqaam la xam na muqim ku fa taxaw taxawookaay ak ka fa taxaw muhammadiya du muhammad dafa am taxawaay ku fa taxaw ahmadiya taxawookaay la are la dafa am ku fa taxaw xilaafatu dafa am are dafa am koo xam ne moo fa taxaw soo loolu lañ toll moo tax loolu lañ wax boo dem nag ah ci adre yasiru saali ila maqaam fi ay xadratin ila wujoodin ah, ila ila ila wujoodi ayati ilaa wa wajada kon ilaa wa wajada dem lu may fekk ñu ne ko hee fi la taxal jóg du fii Euh, tableau baa ngi nii tableau ak tableau yi gis nga gis nga fi ne nii li tax boo gisee premier ah, euh, ma demee gis nga fi ñi nga xam ne ñooy def naan buñ dikkee buñ wàccee Dakar xam ne fi ne rii fi mu ne nii ñoom xaari fi ne dañoo jàng nga xamante ne buñ gisee numéro un ñu ne ah moo jëm ci un buñ gisee deux ñu ne ah fii moo jëm ci deux waaye nag kan mooy deux kan mooy un kan mooy kii nag boo dikkee ba ci trois ñii ngay ngay doxee nag ba nga ba ngay dem ba ba milliard tableau bii dootuñ jaawalan lépp nga dikk nag lo kof boo dikk rek ilaa wa jadda ilaa woo jadda al ayata amam woo mu tarjimatan lahu moom moo koy tekkil xamaa woo fii table ba table ba moo lay xamal ki nekk fii xam nga numéro un danga caa xool rek xam ne fa ka fa nekk un un ba nag fii de kenn fi nekk xam nga kenn fi nekk waaye ana kenn ki nag haa war nga nekk ci deux nga ne fii rek deux fi nekk waaye ana deux kon moom lii la fi nekk moom ñu rek moo tax numéro a arqam yi numéro yi duñ dara boo bëgg a dikk nag xam-xam ci numéro ay arqam loolu waa saa yi ñoo dem ci numéro ya waaye yow ba nga dikkee nag ne romb nga numéro bi ngay xool waaw borom numéro bi kan nag lii dem a dem nag xam-xam boo gisee xam-xam gën a yokk numéro yi dañuy gën a yokk chiffre bi day gën a yokk ah léegi nga dikk ci nii ngay dikkee kon nag kenn ku ci nekk nag nii la dikkee nag su ko defee moo tax ji ma tënd ko amaak woo fii walaw balaqa même bu jotee maa balaqa ak loo mën a jot ak lu mu rëy rëy foofu la mas daadaa taa yoo ko fa man dégg fi laay ci yàlla taa yoo xamante xaaris dégg-déggam ci yàlla doolee ko la is daal damay dégg soo moo dégg-déggam fi ci ay ba aay ba ay digg-digg mi ngi ci benn ay ay digg-digg-digg boo ne trois ñu ne ñett ñu ne ñett lu tax ñu ne ko ñett te kenn fi nekk ñu ne waaw nam taxawee tax moo tax waaw léegi xam nga trois bañ ne ko léegi dañ koy def ñetti ñetti si ñetti ñetti daan ñetti daan yi ah, ah? <laughs> waaw léegi lu tax ñu def ko ñetti daan yi <laughs> ah léegi nag eh, lii nag waa ñetti siin si moo tax si arafu siin day ñetti daan yi ñu indiwaat boo xam ne moom dañuy def ñetti daan ak ñetti tombaat kon am na ñetti daan ak ñetti tomb juróom-benn waaw lu tax nag siin ñu bindee ko nii siin gu wow ga ñu dox ko ñetti yële lu tax nag laam ñu bindee ko nii lu tax alif ñu bindee ko nii loolu benn xam-xam la boo xamante ne yow xel ma xorof yow mën ngaa yem fii xam-xam rek ci gën a xamuloo liggéey da ngay xam ko xam ne mooy xaraf bu dëgg dëgg dëgg dëgg loolu mooy maarifa boo xamante ni day jàll dafay bees rek kon nag nii taa yoo xamante ne am dégg-dégg bees rek dana xam nag mu tarjimata la ko xamaa xoo fii walaw balaqa maa balaqa fa kullama isdaada faman fii laa yéen a isdaada fahmahu fiha wala di nga wala di eh, eh, wali i wi ihamin haasa wala wila lu ci loo ci def foofu yokki ah waaw ki neexul lii kii daf ko yàq dégg nga woo li haasa wala wali wala saalika bi maanaa wala nihaayata la war a nekk daf ko yàq wala nihaayat la kii <laughs> daf koy ah xam nga yàlla ko def wala nihaayata la du wala yihaayata wala yihaayata man koo jàng ci arab <laughs> kon nihaayat la wala nihaayat laha am leen waaye wala li saalika doone ne lii la wali kulli ahli xaqiqati ñeel na waa xaqiqa bu nekk foo mun dégg-dégg fi lu xalaat ci alquran xaasim waxal nañ ko dégal bi coom waa xaqiqa bu nekk am na ñoo xam ne ñoom ñi xaqiqa xam nga xaqiqa un ña jeex ca fànnaaw bële xamuñ xaq xam un bi yow na mën nga ci génne ci biir un ci xam ne ñoo xamuñ ko nga dem ñoo xam ne ñoo nekk ci xaq xam deux na ñoo xam ci biir déen yoo xamante ni ku di ko ca biir de mën na koo xam kon lii moo ne moom la nguur gi nekk moom taxawee kon nag walaay kon ne koo xam moom walla yéen foofu illaa man yaari foofu walaa yu saa yi doo di janoog moom illaa man saa yu saa yi doo koo xam ne koo moo ko janoog kenn du janoog loola balaa ngaa jëf la ca biir xàq xam yow ma dikk ba ci di yaa dikk ne ah ndeke man la ma yaakaaroon ak fa ma ko yaakaaree bokkul wala yaarif woo du ko xam ilaa man yaarifaal ma xam na xam na xàq na wala yu saa yu daal di jëloon ilaa man doo xam ne yu saa yu dafa jëloon ah du ko defee ah yéen a loolu dañ am na ñoom xarifin yi saalikal fahma boo ma dégg-dégg daal tamit fànnaa yim kam nañ gën a fànnaa wa an fi wala ah li ma doon wax kenn nañ fànnaa ci bakkan ku la jeexal bakkan. yaa ngay jot loolu doo ko mën a am lu mooy illaa bi asbi fana in xan anfusihim wa baqa in bilaay ñaar yii moo lay moo lay mooy sa doole ku la gën a dàq bakkan gën la ko jeexal takk takk takk takk moo lay gën a bëri dégg ku la gën laa des ci yàlla nag fànnaaw ci bakkan des ci yàlla duñ ko mën a am féeg amul ñaar yooyu jeexal ci bakkan takk des ci yàlla witt loolu nag ñaar yi ngay boolantee mën a am dégg-dégg waa wa baqa wa maarifatuhum seen maarifa li samaraati e, ci meññita e, e, li sama tëdd lii ci meññitam jigéen ba xam nga yàlla jigéen a ñëpp waaye noonu noo gën a dàqee bakkan gën ko setal gën a jeex ci yàlla meññeen ma gën a yor di gën a wàcc suma daan naa fata daala meññeen ma rek di gën a jéeg meññetu meññetu maarifa daal di gën a wàcc ah kon nag lii day mooy la xam wa siru asmaa yi siru asmaa yi gën laa jege si wa sifaat yi siru secret gën laa jege si fa kulla mastaada taa yoo xam ne doole ko na moom xarit alkamal mat fil qalbi ca xol si ko de taa yoo xamante nu mu gën a dolleeku mat ca xol ba ah ah su ko defee ittisaat dafay gën a ilaat sa yaataw indaadoo ay tëbam wa maarif ak maarif gis nga xol nag gis nga xol fi mu nii moom rek mooy chaise bi noo ko gën a bayal noo gën a dàqee dàq noo gën a dàqee dàq noo gën a dàqee rek xol bay gën a duy de kon nag bàyyi mën bàyyi mën bàyyi na wa sayru fii manhajina tijaani ma daaroo fil qalbi lal abdaani kon nag mooy mën suñu doxee gi mu ngi ci xol bi bilaay bàyyi ñes xoon dëgg waay di nga naar yi li ñu la wax rek bay dëppoo waxi bàyyi ilaa xëyri nihayatin jëm ci waxtaan amu yemale jaal naa yàlla def alaw yàlla wa iyaakum ak yéen amin min akmali min ahli kamal yi yàlla yàlla ci waa kamal ah ali nga xamante laa nihaay loo ñël ko kamal ak yàlla boo ko déggee amul yaman innoo yàlla wali salika moo féete loolu wal qaadir mooy ki man ale ci loolu waaye waaye yàlla ñun de ñu ngi toog nii jël nañ suñuy heure yëpp ak suñu temps yëpp def ko de te mënuñ dara xamuñ dara mënuñoo jeexal bakkan mënuñ ko rey mënuñoo dànk suñu gàllankoor yàqu man ay yàlla ni ñu góorgóorlu suñu góorgóorlu sii may ñu ci ñu mën a àgg ci mat goo xamante mat gu mat sëkk sëkk sëkk la ah allahumma salli ala sayyidina wa fatima wa laqa wal qatim wa sawqana fi rahmatil laqi ولا أدلى سلفك المستقيم ولا علي قدر من قدر الأسلم سبحان ذلك رب العالمين أي واي أي واي